Mar a ngi noonu di jël ndam li ndeysaan rakku expert contact ndam li rakku la te Ndiaye ndam li ndeysaan moo nekk magu Keleer dafi jaman force bu air force kati am na maa doomu doye sa am rek Yacine yaay very yaay sugu fas Come honor and bless the Jason North Ken Mar Kalamun Zedan Tidiane Ka mooy entraîneur bi mu mel ni tey Pape Demba Cissé moo koy entraîneur bi nee na jeex na soke bi nee na jeex na ndeysaan ta feex le da a 15 ba ku bàyyu dara as bu Amar Ba wa Signor la ilaha illallah kiri moo koy indi ak nga xamante ni mooy leex le fils de Soleil de Mingu ten quoi sardes sukal na zone danseur numéro 7 eh, xacc la ndeysaan mbokk bàyyi pour nu dëngi noonu Thank you. gi nag lépp sunu maam première sax itam di wax naan góor bu jant bi la ngay rek lay waaye naar góor lu mu réew naaru góor ko gën a moom la sunu maam professeur sax jàng wax waaye gis naa foofu wi nday paama deer dugg si na waaye gis naa ki nga xamante moo leen rawoon di taw feex dugg si na El Capo ñëw na mu barak ñëw na Bura mi leen rawoon ñëw na tey ñoo ngi noon di naataango yoo xam ne yu mën a waaye nañ xaar Las Palmas Médina vainqueur grand prix de la renaissance africaine moom tamit moo ngi noonu jo ko Modou Dieye moo ko mi ngi bàyyi ko ci écriture Sangalkam écriture bu prep bu Papis Niang mi ngi noonu écriture bu Adja Diop jërëjëf Père Ndeye Ba Madère a ngi noonu wuti Babacar Mar le fils de Khabib Khabib Elisif Seldi Elsif Kalti Gonwes yaayam doomu Garouza la Garouza dan xil danseur danseur no zone danseur dimanche passé moom mooy deuxième àndoon nag nga xamante ne si moom mooy Tawfekh Tawfekh raw premier ñaari fas yi nag xale bu góor la xale bu jigéen sa xel day dem ci benn baaw gaari salaam tey loxo dina dem gémmeñ te du ànd ak dangu ceeb laay laay la laa fas yaa ngi non di dem ca départ ba fas yaa ngi noonu dem ca départ ba Babacar Mar le caméraman de tout le temps ma taxaw nga xamante ni mooy ko sa peex mu sol jàllaabe bu weex tàll tey daa ci weeru koor gi la Babacar Mar drapeau bu xonk bi jóg na gaay yi jóg nañu li la amateur yëpp yaakamti woon jóg nañu jóg nañu jóg nañu naaru góor yi jóg nañu les crack adultes mu mel ni laaw dafa tina maninam deuxième position Lat Fatim Anta Ndiaye ñaari fas yi ni lañ yàgg ànd di def laaw Lat Fatim laaw Lat Fatim laay la hay la la laay laay la la doomu ci ba tee doomu siaman force ci ba tee Fabulous White Fabulous danseur no zone danseur siaman force bul air force et le Pekin Redemption Roberto troisième position Moubarak King Sarlemane jeune danseur mu mel ni ki toog quatrième position je pense bien Ndeye Fama Der la ou bien ki nga xamante ne si kasaak bu la blanc bu écrit réuni mu mel ni kon Der la wante laaw moom moo génn day jaab rek deuxième position Lat Fatim moom mi day jaab rek troisième position Moubarak moom tamit day jaab rek Ndeye Fama Der day jaab Tawfeex day jaab Buraax moom it day jaab rek El Capo wante nekk na rawante bu rëy rëy laaw moo génn. laaw defati na maninam Mamadou Ndiaye Gadiaga ko doon war tey dañ koo suspendre waaye Lat Fatim Anta Ndiaye Massiré Anta Ndiaye taw na deuxième position waaye léegi ñu am 3 euh, mètres waaye mu barak tey xaw ma lan la tey dañ koo bank ci bërëb bi di ko déglu waaye tey ñi ngi ñoom ñëpp ngi déglu waaye gis naa tey El Capo fi ko téye xaw bi xaw naa sori lool waaye tey laaw ki nga xam Wade laaw am na 1000 mètres dese na leen 1200 mètres ngi teel wët si ñu ñëwee dañuy dem. Matar Guissé ba tey laaw moo ne ci kanam deuxième position nekk nga xam ne moo di Lat Fatim Anta Ndiaye troisième position nekk nga xam ne moo di Moubarak quatrième position nekk Tawfekh cinquième position nekk nga xamante moo di Ndamli gaa yaa ngi noon ndeysaan di dellu.

maa ngi daw ci aras bi laay laay laa ndam li génn na ndam li dawal na El Capo dawal nañu Abdourahim dawal nañu Tawféex course tay mu mel ni day lamber eh, favori bi génn na Tawféex génn na Tawféex génn na wante Buraax mu ngi daw lu bari El mu ngi daw lu bari Cheikh Wade Medina mu ngi daw lu bari wante tawféex ba léegi moo génn. tawféex ba léegi moo génn deuxième position nekk day famateur troisième position nekk ndam li quatrième position nekk El Capo cinquième position nekk ki nga moo di la Médina doomu Seydou Minoune waaye ba tey ki nga xam ne moo génn moo di tawféex bu ikiri lamu far ñu noonu si 200000 bi di ñëw 200000 bi nar na métti la tolmaas ba fi may wax moo génn moo di tawféex bu ikiri lamu far la tawféex day Famara El Capo tawféex tawféex tawféex doon na première deuxième El Capo troisième Medina quatrième ndam li lay lay la la tawféex bu raxu sapeur pompier Amar Ba bi moom moo raw allahu akbar ki nga xamante ni moo raw mooy tawféex sama xel dem na ci raxu sapeur pompier lamba far bi sama xel dem ci nga xamante ni mooy Kapulo sama xel dem ci Souleymane Papanar Cheikh Bey Gandar Yaba ñu ngi koy félicité Tawfekh raw na première deuxième El Capo troisième Medina la ilaha illallah c'est Omar Bawa Junior qui a gagné 3 minutes secondes El Capo mo nek nonu Omar Bawo Senior rawna premier lay lay la la laa di fës na baax a Omar Bawo Senior tawfiq ngi nonu il a confirmé tawfiq borom grand prix Zelda dabi nena la Omar Bawo boko ko sama lepp tawfiq ne lépp tawfeex Mbaye Diène Diallo moo war def temps 3 minutes 05 secondes Pala ya ngi nonu entraîneur bi koko Omar Bawo waaye doomu ndey moo yor fas wi ngi nonu ñu len koy won Diofior a ngi nonu Lat Fatim Anta Ndiaye Abdourahim Amar Bawo Rawna Amar Bawo Rawna Mame Gane Daria Ba jóge na as 221 cëppeelu ci piste bi ñëw teel kapo waaye bëgg rek moo for xoolal lii Babacar Mar xoolal Mame Gane xoolal Mame Gane fa mu jóge étage ba la jóge waat ci suuf ñëw teel kapo waaye démb si guddi dawal bi métti woon na ci groupe bi tey lépp leer na kon donc taw bi raw na première wante nday faama der moo ngi noonu génn na moom tamit oo oh, Sarr day fa amateur rangi nonu di dem taw feex a ngi ñu leen koy wan vainqueur grand prix de l'état mbako bayo darda siaif domu fari al job ak tey naslo monsel cey papa lay baba karmar boy bi boy ties la boy Salamine la koku nonu fas rek la bëgg ndaysan fexé na ba dem ci fas yi rek ma ngi taw ak nga xamante ni mooy mbaam ngañ Dariaba ku ko xam-xam ni mo bëgg Omar Ba Senior ki nee loolu téyeer boo xamante ni lu mu ñaw rek rafet na taalibe sëñ Babacar maam nga ñu gis la nga jugee s a ñëw similé lan moo waral loolu tey. rawante moo ñu toll rawante moo ko laaj di jégalu aussi ñëpp ñi nga xamante ni ñu seetaan parce que yàlla xam na ni ñu def nii dépassé nañ ko si court circuit mais parfois mbégte ak contentement mooy def soo lu nekk tey boo xoolee écurie Lamba Fall tool yi bay woon na trop te taw feex ku ne xam na ni mën a daw yàgg na koo mais bo xolé deug bi ñëw ba tay day daw ay performance am am solo mais dafa am ba tay wax ni dañ ko téye suñu xol muy da fa fas dafa daw lool grand chef de l'État dañ ko dopé xam nga ni ki li muy def fa bu ñu dopé def ko na woon nañ ko dopé dose bi jeex na. dëgg la ci moom vraiment moom buy dugg sax day cabaret wa lool non cabaret bobu muy taw féex di def cabaret bobu manam bu ko défé dafa war raw facilement. non lool fi na ci mom parce que ku xam papam xam ni non lay def muy fas bi nga xamanteni mu moom sur le si kon taw féex bu ñëwé di def lii dañuy wax ne si vague yi la ko jëlee te tawfeex maam gi du taxaan laxsama moytu mu sotu vanis voilà sotu vanis la vanis ay doomam toj nañu réew mi te fête dernière bu baax la te ku ne xam ne vanis moo jur yaayam ami waaye nag attention ndax seen naa ki nga xamante mooy El Capo mu ngi jàng loo xam ne bu mokkee eh. waaye las ku si ñit bi na mbaawoo ku si ñit bi na mbaawoo Adama nuyu ngi lay fay tey gis nañ li nga xamante moom la Tawfekh raye dimanche bii ñu génn dafa dikk raw ak la manière tey mu dikkaat répété waat loolu raw tey nan ngeen préparé loolu ci seen bi comme ni ñuy préparé rek sant yàlla rek fas moom amul secret moom liggéey rek jariñu la lool longu la amul beneen secret mais sant yàlla rek ba ñoom ñaar ñu tegaloo mais mënoon na gën a demee nii sax mënoon na gën a neex mais dañ sant yàlla rek. mais mais xam nga xam nga ñu ngi ñu ngi jublu ci premier jour weeru koor. waaw. tey fan nga mën a xaar ñu ngi jëm ci grand prix yu mag bu ci mel ne grand prix renaissance grand prix chef de l' état fas yu taw feex ñëw raw ñu jëm ci bis boobu lan ngay wax lan nga a liggéey rek nañ liggéey lépp rek liggéey rek mooy liggéey jariñu moom ku liggéey rek di nga jariñu incha allah moo